njabootu ñëwoon démb salaamaaleykum ñëwoon démb waxoon nañ leen ko dafay def tamit actualité euh, tey dañu jóge ci tournoi bu nga xamee ni Joseph Koto daf ko gagné tey dama war ni Joseph Marie coto ci fu mu jógee ak équipe bi dama koy woo ci turam na mu toll Joseph Marie coto dañuy def actualité émission bi sax tey moo nañ ko euh, euh, dippee ñëwoon démb ak tey parce que coto dafay def démb ak tey Il y a 32 ans, il était en équipe nationale de football du Sénégal. Il y a 32 ans, il portait son premier maillot d'international. Cabral dégg ngeen ko Amical Cabral Sénégal daf ko mujj moom moom mii daf ka gagné ba doyal juróom-benn yoon tey jii mu teg ay doomam ci euh, biir mayo bi ñu gagné ji. parce qu'il y ans xale yi gagné barki démb UEMOA bi juddu wuñu moom il y a 32 ans il était déjà en équipe nationale moom la ñuy ganale tey Joseph Marie Koto ci li mu def démb ak tey maa ngi naan tout à l'heure barewul entraîneur yu am profilu Koto ñoo xame ni dañu sol maillot bi simmi ko euh, ñëw di euh, entraîner di gagner maa ngi naan tout à l'heure Souleymane Camara gaucher fa la jóge sol maillot bi nekk entraîneur national Boubacar Sarr ak euh, Jules François Bocandé Lamine Ndiaye Amara Traoré ak moom mii kon xam ngeen ni tey jii am nañu gan gu mag a mag a mag mu def démb ak tey tey UEMOA bi Koto ma bàyyi la nga nuyu say soppe tes admirateurs. waaw euh, parents yi ci football bi. ñu soobu ci waxtaan bi. merci lay damay kontaan trop ci invitation bi ma defal yow sunu mag nga euh, da nga yàgg ànd ñun dañu gunge fu nekk donc tey plaisir la pour man tey ma ñëw ci sa émission soo ko seetee euh, fan yëpp émission yëpp bugguma dem benn émission. parce que mm-hmm. d' abord il fallait que ma dalal parce que vraiment ci compétition bu métti nañ génn. Mm-hmm. mais yow sa émission mënu ko bañ a ñëw parce que da nga doon ku nga xam ni euh, da ñu yëg lépp li war ci ñun da ko def ba nuy football da ñu accompagner comme tey ñu ñëw ba nekk entraîneur ci sa kanam nga continuer di ñu accompagner donc foog naa ne ndam la pour ñun donc euh, victoire bi d' abord tey victoire bi nu am yow laa ko jëkk a dédié parce que man dama ci kontaan trop ndax euh, damay fàttaliku xam nga nit ki. Hmm. looy def rek ci àddina il faut ngay fàttaliku. ba may jugee Charles bu mujj nii ba euh, wax ji bare trop trop trop trop foog naa ne yow kenn rek yaa ma porté pour jàppale ma. jërëjëf ko pour jox ma xam confiance bi nga may jox parce que ba nga may gis may jouer euh, kóolute boobu amoon sunu diggante moom nga reconduire ba nga xam ne moo tax nga def avancer li nga wax yëpp donc tey. su ma delloo tey ba yàlla may ma parce que yàlla rek mooy def loolu yàlla may ma tey ma am ndam ak sama équipe damay kontaan parce que damay dëggal li nga xam ne moom nga doon wax donc loolu rek moo ci am solo. Joseph Koto béninois yi ñu ni dañu fier parce que c'est un Sénégalais d'origine béninoise bu am bii prestance bu am bii rayonnement di faire briller nag l'aura aussi du football euh, euh, béninois. te lii depuis euh, bañ leen di wax euh, Dahomey ñoom sax d'ailleurs mu sañ ko sabablu pour mu jouer en équipe nationale du Bénin parce que nee nañu comme papaam est d'origine béninoise war na man jouer Bénin alors on y arrivera euh, émission bi gàtt na ñu jëm ko tënk ak Joseph coto Koto barewul ci sa génération ñoo xam ni daañ la wax ni la j'ai tant de sélection daañu fàttaliku rek bi ñuy dugg équipe nationale ak bi ñuy génn kañ nga ñëw équipe nationale ak ban circonstance Euh, bon donc merci lay donc toujours li may wax mooy euh, man ba may ñëw équipe nationale euh, mën naa wax soixante dix neuf la soixante dix mooy ci nañ doon préparé premier Cabral premier Cabral kii moo doon sunu entraîneur Koya Pape Diop ak Koya noo yore woon mhm. au passage dama leen di gërëm bu baax parce que ay entraîneur la yu nga xam ne yu ñu apporté lu bare bare bare bare ci sunu carrière mhm. mën naa wax sax liggéey bi may def nii dama inspiré wu ci ñoom du ñoom rek am na ñeneen. Mhm. je peux dire mën naa citer parce que y des entraîneurs yu nga xam ne marqué nañ ma trop suma carrière Abdoulaye Sow d' abord. Laye Sow Laye Sow bu nga xam ne moo doon sama entraîneur gendarme ba pare mooy entraîneur bi ma jëkk yóbbu championnat du monde. Ablaye Sow Ablaye Sow moom ma jëkk yóbbu championnat du monde scolaire et universitaire. Mhm. à Montevideo. Mhm. bu nga xam ne le Sénégal a été éliminé quart de finale la ñu éliminé. waaw série tir au but. ku leen éliminé woon euh, kii moo ñu éliminé Corée. moo ñu éliminé série tir au but parce que dañu def 3-3. Mhm. te championnat du monde boobu dama koy retenir bu baax parce que. Euh, championnat du monde boobu deuxième meilleur buteur. j'étais deuxième meilleur buteur du monde. donc euh, y avait euh, si suñu équipe vraiment ñoom Lamine Ndiaye. waaw ñoom Big Boy. Mm, Moussa Kamara Big Boy ñoom Moussa Kamara Big Boy. ñoom euh, Fodé Mangassa mhm. ñoom euh, Diagne gardien de but ñoom euh, Jean-Pierre Correa le poteau Jean-Pierre Correa waaw Ali Sarr kii Malick Ndoye mhm. donc équipe bu rey na ñu amoon si si donc match boobu sax contre Corée mënoon nañ ci génn mais xam nga rek yàlla lu mu tuddul mënul am dem tiro bi donc ñooñu c'est des entraîneurs yu nga xam ne yu ma marqué Jo Diop beneen entraîneur la bu nga xam ne du ma ko fàtte mukk parce que au niveau de la Jeanne d'Arc daf ma jàpp di ma tete di ma tete bon amoon naa sax ay jikko tuuti yu voyu xam nga ñun <laughs> euh, yenn saay yi euh, sunu entraîneurs yi dañ leen daan nax tuuti ci yenn affaire yi mais jo kenn mënu ko nax mhm. damay nettali toujours affaire boobu su ma ko nettali te nettalee gaay yi ree moom moo tax may naan sama joueurs yi mënuñu ma nax benn 31 décembre la il faut ma nettali la ko laay benn 31 décembre la donc euh, dama cotiser woon nax sama xarit yi pour bal j'ai am match amical teelu ma ko yëg après bu fekk ñun cotisation yi cotisé nañ ko un mois avant. léegi j'ai a match amical contre ASEC d'Abidjan mais temps boobu maa ngi sama diggu ndëdd. parce que j'étais en forme xamoon naa ne loolu mënuma jeûner ci dara. bon loolu xalaatu nit ki la toujours. oui ma ñëw mais ma doon capitaine équipe bi. Mhm. ma ñëw euh, ci guddi bi Jo Diop sentir ne que dama bëggoon jéem na parce que. man ak ñoom Christophe Sagna noo bokkoon fi ñu waroon baal yi. te Géo boobu mooy sa entraîneur. moo doon suma entraîneur mais la gendarme mais ko ñoom Christophe Sagna comme ñoom euh, dañu ñëwoon dañ leen invité woon parce que dañ jóge woon France ñëw vacances comme il était de la gendarme match bi ñuy joué kon ASEC d'Abidjan fii. Oh. Géo ñu boole ko ci équipe bi pour mu renforcer équipe bi donc Géo Christophe mën na dem Bali bon mais bu mu yàgg après mu dellu si mais man il est hors de question mais ci guddi ma bàyyi ba ñëpp tëdd. man ne sama euh, Babacar Ndiaye booy damay jénne tuuti dellu siwaat ba ma jénnee dem Jo Diop ndeke xamoon na loolu moom mu ngi ma doon gerte ci lëndëm bi ba ma demee mu ñëw tëdd sama place léegi ba ma ñëwee ci euh, vers deux heures du matin trois heures du matin di sànni xeer pour Babacar Ndiaye parce que pour man Babacar Ndiaye moo nekk ci dégg bi ndeke xeer yi ma doon sanni ci ko Jo Diop la léegi Jo yow ubbil ma bu ne ma Jo mën nga tëdd mais demee suba teel bu ñu kenn yëg na nga jël sa bagage li bi ndax match bi doo ko joué donc c' est extraordinaire quoi donc euh, voilà c' est des comme ça yu nga xam ne c' est quelqu'un bu nga xam ne c' est un psychologue dafa xam joueur xam yëpp mm-hmm, mm-hmm. et puis sama carrière entraîneur sincèrement c' est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé Jojo parce que daf may encouragé daf may wax ne yow da nga am légitimité tey ci entraîneur yi moo ci mag moo ci mag il avec Lamine Diack ak Mawad voilà tey moo ci mag moo ci mag mooy imam tey ci entraîneur waaw donc chaque fois mm-hmm. daf may encouragé wax nga après même équipe bi su jaaree à côté daf may woo ne ma xoola gëmal li ngay def continuer mm-hmm. yaa ngi ci yoon bu baax bi parce que man xam naa kuy entraîneur ku dul entraîneur tey jii il a raison tey maa ngi koy gërëm voilà vraiment Jo maa ngi lay gërëm fi mu nekk euh, di la wax rek toujours que ne ñu ngi sa gannaaw di xaar toujours say conseil parce que toujours ñun soxla nañu ay conseil parce que ay entraîneurs yu ndaw la dinañ ndaw nañu defaguñu dara nag ci football bi parce que football bi am na fu ñu ko bëgg a yóbbu ñun mm. suñu ambition vraiment yóbbu football sénégalais fu mu gën a toll fu mu gën a kawe la mais vraiment ci ñoom nañu mën a basé wu ci seen i conseil ñoom ñi nga xam ne ñooñu ci jiitu ñooñu ci ëpp expérience pour nu mën a yegg fi nga xam ne foofu la ñu jëm Joseph Koto moo leen ganes si tey mën naa ni ak Joso Koto dafa nekk tey ak démb il y a 32 il entre en équipe nationale def fa 19 ans waaw il y a 32 ans bi muy dugg équipe nationale il a été international pendant 19 ans ñoom ñoo yéegi Sénégal en première division parce que xam nga Sénégal dafa def ñaari kaan 65 68 de 68 à 86 ñu nekk foofu te booba temps dañ nekk ci deuxième division bu ko bu nga xamee ni ça ne porte pas son nom ñoom ñoo delloo si Sénégal tey jii ci bii élite euh, Jules Bocandé Thierno Youm Cheikh Oumar Gueye seen gaa ñaa ngi noonu Racine Kane Roger Mendy ñii ñoo dellusi Sénégal jo ban perception nga am ci seen période boobu ak ñoom Boubacar Sarr Locotte bi Sénégal di dellu si pour dem guerre 86. lay di nga toujours loolu dafa doon lu nga xam ne daf ma marqué. Mhm. période boobu daf ma marqué trop soo laajee tey sama joueur yi. toujours damay delloo si exemple boobu. di waxtaan ak ñoom ci loolu. damay delloo si parce que loolu dafa am solo ci ma wax sama joueur euh, sama joueur yi dama leen di wax toujours ne ñun tey xam nga lu ñu indi ci football delloo si football bi dañu ñëw pour dimbali leen ngeen yegg fu nga xam ne ñun yegguñu fa. Mhm. te pour ngeen yegg foofu erreur yu ñun yu ñu def. bu leen ko def yéen soo leen ko deful di ngeen passé fi nga xam ne foofu la ñu ñëwoon. Mhm. parce que laay soo ko xoolee bu baax. suñu équipe boobu c'est une des meilleures équipes de tous les temps oui. au Sénégal si on ne dit pas la meilleure équipe mhm. parce que c'était une équipe complète kon équipe bi Koto di wax ngi nii booba temps Pape Diop koy defar mu nekk en chantier Joseph Koto moo jonkon ni à gauche euh, ci wetam Moussa Diop Kenom euh, ci wetu Moussa Diop Kenom ngeen am ci Adolphe Mendy Amadou Diop moo nekk noonu ci wetu Adolphe Mendy Salif Diagne Euh, ci euh, wetu Amadou euh, Diop Ibrahima Diakhabi mi ngi nii ci wetu Salif Diagne Pape Fall moo nekk noonu moom tamit ci gauche Ibrahima Diakhabi borom rasta yi di Nounou Préra bari nañ ci yéen ñoo xam ne buñ ko jëkkee seen bokkande lañ koy teg c'est Nounou Préra parce que bi fekk na bokkande Thierno Youm ak Roger Mendy nekk déjà en France ñu continuer ak partenaire côté ba tey ci kaw taxaw à gauche Racine Kane Cheikh Seck Mamadou Sala Dizal Moussa Faye Magder Cheikh Fall Alassane ran Rann di Ahmed Ndiaye ak Tidiane Diémé kii moo di équipe bi nga xamee ni Pape Diop door na di ko defar mu nekkoon nag en chantier mooy continuer ji nii ba Caire 86 équipe bu Caire 86 base bi moo nekk gum nii. équipe bu nga xam ne la vraiment équipe bu xarañ la mhm. soo ko seetee 86 ñun ba nu gagné sunu premier match. Égypte bi nga xam ne moo ko organisé woon. Mhm. gagné Mozambique Mozambique deuxième match. troisième match ba ñuy préparé Abidjan. contre Côte d'Ivoire contre Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire joueurs yi dañu jug suba teel dem defi achat en ville parce que ñoom mënuñu xalaat xalaatuñu woon benn yoon que mën nañu gagné équipe Sénégal. Mhm. donc pour te dire. dem defi achat en pour ñibbi. pour ñibbi seen valise yi wàccee nañ ko ci hall bi mais li ma lay wax laay moo am. Mhm. wàccee nañu seen valise yëpp ci hall bi. dem dugg seen car dem defi achat en ville pour ñëw préparer. ñibbi guddi bi pour ñu jël avion ñibbi. su ñu joué match bi ba pare ñu jël avion ñibbi. ñu ñëw ci match bi boo soo ko seetee euh, déroulement match bi huit minutes ñu am mais match bi ñu bare dañuy wax tey avec du recul. dinaa leen waxaat ne loolu nit yi doon wax ay affaire xaalis bex yu yëpp c'est des conneries amul. li ñu coow lu ker 86 ba yëpp mais xam nga lu ñu éliminé laay. ah tey dinaa la ko wax. Hmm. mooy dañu ñëw jour match bi ba stade bi di préparer def échauffement sunu passeport yi réer. passeport yi réer. passeport yëpp benn passeport newu fa gars yi kii kenn xamul kan moo yoroon passeport yi ak fan la passeport yi nekkoon donc ñun pour ñun forfait la kenn échauffé wul ci équipe bi. parce que présentation yi passeport yi la ñuy présenté. présenté donc ñu resté suñu vestiaire kenn présenté wul tout le monde était énervé ci vestiaire bi en arbitre bi Diramba moo arbitré match bi. Mhm. moo ñëw ci suñu vestiaire ne écoutez levez-vous allez vous réchauffer on va commencer le match je vous laisse jusqu'à la mi-temps mi-temps ñu door a def présentation yi en attendant vous dina vous dina leen bàyyi temps. ngeen dellu hôtel ba seeti licence yi indi ko passeport yi parce que passeport yi moom ngeen joué ñaari match yu yi donc léegi dem seeti passeport yi man bàyyi naa ba mi mhm. donc xam nga énervement boobu ñu nekkoon oui oui nañu duggee ci match bi donc dugguñu ci match bi mhm. huit minutes de jeu nu am penalty gardien bi repoussé ko jël penalty bi parce que bëgg ko bëgg a def lu baax mu door ko gardien bi repoussé ko mu yokk énervement équipe bi donc euh, Jules ci biir match bi mu buggoon rattrapé wu. Mhm. yow joueur nga xam nga nu mu demee. oui oui donc euh, loolu moo ko xaw a bloqué ci match bi. Mhm. donc équipe bi yëpp loolu moo ñu jàpp. daal di paralysé. paralysé ba pare na gars ñi xamuñu ni en perdant 1-0 contre la Côte d'Ivoire du ñu qualifié. du loolu yëpp xamuñu ko. oui oui c'est vrai. donc lay pratiquement loolu moo ñu. oui oui kon équipe bu keroog bi moo nekk nii ba tey Pape Diop continuer liggéey bi. Joseph coto nekk nii accroupi à gauche sur votre gauche ci wetu Koto Boubacar Sarr Lokot ci wetu Boubacar Sarr Lokot Lamine Ndiaye moo loxoom nii ci ballon bi euh, Lamine Ndiaye jaar fi nekk entraîneur national ci wetu lamin Ndiaye ngeen am ci Pape Fall Amadou Diop moo ñëw nii ci wetu Pape Fall di capitaine ak Christophe Sagna moo accroupi noonu à gauche sur la droite de l'écran Euh, Christophe nga xamee ni ñu ci bare dañ koy dégg gëj nañ ko gis depuis CAIR 86 kon ñii ñoo door ba tey di nekk euh, partenaire u euh, Joseph Koto ci équipe bi nga xamee ni léegi mi ngay jege CAIR 86 bu ñu yégee ci kaw ñi taxaw ni à gauche di Karim Sey ci wetu Karim Sey Roger Mendy ci wetu Roger Mendy Jules Bocandé Cheikh Seck comme gardien de but Cheikh Fall la nekk nii ci wetu sur la gauche de Cheikh Seck Cheikh Sy moo nekk ci wetu euh, Cheikh Fall gannaaw Cheikh Fall Racine Kane euh, ci euh, gauche Cheikh si Mamadou Sala Dizal en survêtement mu nekkoon la doublure de Cheikh Seck kon équipe bu Caire 86 bi Koto di wax ba tey mooy jël forme ma dellu si ak yéen nag ci Joseph Koto mi nga xam ni moo accroupi à gauche sur votre gauche ci ñëwoon démb tey ñu invité ko moom mi nga xam ni démb moo jox Sénégal UMOA. donc équipe boobu. Mhm. mais équipe bu rëy la woon. bu rëy la woon. bu rëy moo tax sama joueur yi loolu laa leen di jox exemple ni naa leen football am na joueur yu nga xam ne def nañu seen carrière yëpp. musuñu mhm. jouer en équipe nationale te c'est des joueurs très talentueux. wax nga dëgg. y des joueurs yu nga xam ne ñëw nañu équipe nationale musuñu am occasion jouer une finale. Mhm. loolu beneen beneen euh, genre beneen euh, groupe la. am na joueurs yu nga xam ne. joué nañu équipe nationale ba pare seen tour mosuñu ko tudd pratiquement. wax nga dëgg mosuñu ci siw mais yéen sax ay talent yu mosul dem coupe d'Afrique. mosu dem coupe d'Afrique Mbaye Fall. dem coupe d'Afrique. donc ma ne leen nit ki. Mhm. da ngay am bés. dafa am nit bu nekk da ngay wut bés bi. moom lañ lay fàttalikoo. parce que am na match yu nga xam ne c'est des matchs référence. Mhm. soo ci wanee dara rek. Mhm. maa ngi fàttaliku sunu final ak Linguère. 84 yaa ngi ma koy waxaat 84. waaw ba ngay def reportage bi ne Koto ne fait jamais un mauvais match. wax nga dëgg. <laughs> mais maa ngi lay wax ne maa ngi koy déglu sama oto chaque fois mu ngi sama biir oto dama koy déglu. reportage bi. reportage bi dama koy déglu. te dama koy tegal sama jour yi ñu koy déglu. si si si gis nga laay moo tax très souvent ñuy wax ne vécu dafa am importance. wax nga dëgg jour. xam nga joueur bi. Mm-hmm. am na moment yu nga xam ne ñun en tant que entraîneur aujourd'hui joueur entraîneur yu nga xam ne joué nañu au niveau. xam nañu odoru versaire yi xam nañu naka la demee parce que ça c'est important aussi mhm. c'est un atout supplémentaire je ne dis pas que euh, les anciens joueurs rek noo mën a nekk grand entraîneur loolu mënu musu mu nit mënu ko wax mais que waaw les anciens joueurs dem ba def stage formation yu wóor ñëw nekk entraîneur waaw soo nekkee entraîneur mhm. ce joueur du la jaaxal d'abord ci euh, sur le plan comportement mhm. deuxièmement mooy ce joueur am na ay moments yu nga xam ne su cangee am na loo koy wax lu nga xam ne mën na ñëw surtout que nag ñun dañu amoon ay góor yu mel ni le ay pa beskaay nga dëgg ay pa beskaay nga xam ne dafa dafa daan ñëw ba équipe bi pare yëpp mu waxtaan mu ñëw wax ñun su la waxee soo ci jénnee da ngay foog ne tey gaynde bi su taxawee dama koy rendi <laughs> wax nga dëgg ñu am entraîneur bu mel ni Mawad Wade mhm. parce que ñun jaar nañu ci Mawad Mawad entraîné nañu wax nga dëgg show Mawad su waxee ñun dañuy yaakaar ne tey mais suñu dajee ak Brésil. Mhm. bu pëlee ak yooyu dañ koy. dañ koy gagné dañ koy gagné <laughs> parce que loolu nañu jàng ci ñooñu. wax nga donc loolu tey boobu nañu war a traduire suñu xale yi. ba nga xam ne pour nu mën ñu jox résultat yi nga xam ne. wax nga dëgg Joseph Koto ngi nii voilà ni mu mel en tant que footballeur noonu la mel en tant qu'homme entier Jo su ma leen woon ci sa carrière ban but sous le maillot de la gendarme ban but moo gën a important ci sa ban nga may jox ban but moo gën a important ci sa carrière boo dugal. mooy égalisation contre Casa. il reste douze minutes à jouer. finale coupe du Sénégal 1980. Casa mène 1-0 nga égaliser. et pourtant li nga gàtt yëpp ci biir njool ñi nga égaliser de la tête ah. mais dama koy waxtaanee toujours ak sama xarit yi xam nga match boobu dañuy toog dinaan naan koto sëriñ yee ko yëkkateeg dafa kenn xamul laal la damay ree. Ah. parce que loolu moom lay wax ne détermination joueur joueur bi su déterminé rek yàlla daf lay dimbali te lépp day possible ci terrain. wax sunu match bu mujjee bii moo ci moo ci moo ci mooy sama eh, kii sama joueur yi li ma doon wax sama attaquant yi. Mhm. nee naa dafay ñaaw njort. bal bi da koy topp topp ba mu jeex ba mu na nga xam ne jénn na. Mhm. tant que bal bi mu ngi nekk en jeu gazon bi mën na ko téye na dal ci poto dellu si. Mhm. mën na def lu nekk daf may fàttali benn bii bu ma dugal Maroc. Sénégal Maroc. ñu dem Maroc. Valera. presque ci centre bi la taxaw dóor Badou Zaki yaakaar ne bal bi dafay génn donc bal bi ba muy dem Badou Zaki ñëw jéggi bal bi. daf ne day génn. foog ne bal bi day génn. yow nga fekk man maa ngi daw di ñëw. mais kenn xamul lu tax may daw même man munu ma la wax lu tax may daw. ci topp rek mais dama ci topp rek que dama ne bi mën na dal ci mhm. mais ñaan yàlla bu tombé bi dal ci poto bi dellu si. fekk Badou Zaki génn na kaay. daf day génn. daf day génn man ma téye bal bi teg ko ba ci ligne bi. ligne de bii bi. waaw dugaluma ko de. oui temps boobu obligé mu ngi door a jéem. Ah. <laughs> ma toog ci ligne de bii bi di obligé joueur yëpp tëdd ci terrain bi. tribune bi ñëpp ne selew Badou Zaki mënatu ñëw mu taxaw parce que xam na ne su yëngatoo rek bal bi damay talonné rek. bal bi dugg ci kaa yi sax mu dug mu dugg donc joueur dafay ñaaw njort contre Casa. Mhm. motivation bi ma am supplémentaire bi mooy d' abord maa doon capitaine u équipe bi. Mhm. en finale de coupe du Sénégal. responsabilité bu rëy la. oui te année boobu yàlla vraiment dafa ma daf ma joxoon euh, ubbi daf ma ubbi doon sama sama sama. sa jamono sama étoile. waaw ba nga xam ne presque match ja yëpp maa dugal bi mhm. ba nu ñëwee final dañu nekkoon regroupement équipe nationale. 84 contre Linguère. Ah, euh, non Casa Sport Casa Sport d' abord 80. 80 nu nekk regroupement ñoom bokkaande. Euh, euh, kii nu mu tudd Basirou Ndiaye Ousmane Ndiaye compliqué gars yi ñoom Mody Ba ñëpp ñu ngi woon équipe nationale donc ñu nekk di foo di déconné gars yi di naan leen di ñu def jaraaf daaw nañ leen di def ma ne leen yéen da ngeen di caaxaan bi nu ñëwee d' abord ci match bi gars yi mën nañu un 0 ñoom bokkaan deg may sayute ci terrain bi di manaan mu ngi ni tey li ñu la waxoon li ñuy def gars yi moom lañ lay def boobu maa ngi football di jooy je jouais sama rongo ñu di tuuri il reste 12 minutes Casa Sport mené 1-0 finale coupe du Sénégal. mais bii bal bi indi bii bi. Hmm. maa ko jëkk indi ci côté gauche bi man ak Babacar Ndiaye. donc ñu def combinaison ma bës ñu pàdd ma mu ay coup franc bi ñu tegee coup franc bi presque demi corner la ma dem deuxième poteau ba ma demee deuxième poteau premier poteau d'abord ma taf premier poteau bi man xam naa ne su ma defee premier poteau dañuy ñëw def marquage bi ci man ma ne Baba Touré bii yëkkati bal bi. léegi da ngay def temps d'arrêt rek le temps ma def ma jugee deuxième poteau bi arrière ñëw euh, premier poteau ñëw deuxième poteau pour am élan pour mën a. Euh, jóg jug pour mbëkk bal. donc baaba ba mu yëkkee bal bi fekk maa ngi deuxième poteau. di di daw di ñëw mais ba may ba ma tëbee li may jëkk gën a yëkkati mooy man dama joué beaucoup de discipline dama joué handball. Mhm. à Saint-Michel j'ai joué du basket j'ai été champion du Sénégal trois ans tennis de donc sama réflexe yu bëri. waaw tennis de table moo ma ko jox. Mm-hmm. sama détente vertical c' le basket et le handball parce que handball da ngay tëb désaxé. Mm-hmm. bay dóor nu bloqué la nga def deuxième coup de rein. Mm-hmm. soo defee deuxième coup de rein dafa mel ni dañ lay. dañ lay da ngay yëg da ngay dem ci tremplin dangay ngay gën a jug loolu handballeur boo ko laaj dina la ko donc ba ma jugee ba tiim ñoom taw dama def deuxième coup de rein ak Tidiane ba ma defee deuxième coup de rein bi nag mu propulsé ma en l'air mhm. bal bi ñëw ma xool angle bi mbëkk ko mhm. donc bii boobu mais dafa doon bii bu nga xam ne pourquoi parce que supporters UGA yi génnoon nañu presque stade bi ñibbi. waaw à minutes de la fin ngeen égaliser. voilà c'était voilà euh, dem deuxième édition pour gagner Casa Sport Joseph Koto vécu à la à la Jeanne de de de Dakar. moom la ñuy waxtaanee ba tey alors Jo euh, euh, pour rester à la Jeanne parce que mënuñ ci bañ a euh, rester euh, euh, situation bi noo ko vivre métti métti ja dafa demoon ba toll fu nga xam ne laay jaw dañu nommé woon presque on était la troisième meilleure équipe d'Afrique ja dafa tegle quatre championnats Sénégal pratiquement di ko gagné quatre entre quatre années yi nu gagné championnat yëpp dem nañu demi-finale Ligue des Champions joué nañu finale Coupe CAF contre euh, contre euh, Sfax. Mhm. à Tunis. Mhm. joué nañu quart de finale Ligue des Champions. Mhm. donc Jeanne moo tax tey ñaari équipe doon représenté Sénégal Ligue des Champions parce que euh, prestation yi Jeanne d'Arc def moo tax ñu jël ñu repêché beneen équipe mu nekk deux équipes pour Ligue des Champions. donc vraiment su ñu demee bay gagné ay Raja de Casablanca. ay Espérance de Tunis ay ay ay euh, kii nu mu tudd ay euh, kii nu mu tudd les les les. kii non non équipe bu fan la. champion d' Afrique la ñu ñoom noo nekk euh, kii Lumumbashi. ah Mazembe. TP Mazembe waaw ay TP Mazembe. waaw mais c' est parce que Jeanne d'Arc amoon na organisation amoon na lépp lu baax. Mhm. mais tey suñu demee bay wàcc deuxième division mhm. ça fait dara liggéeyaat rek moom laa wax ni boo xoolee ci contexte Sénégal élite bi dafa élargir seul jaraaf moo man ni musuma dem deuxième division ti gëm naa ni Jean euh, dana gaaw a dana gaaw a dellu si Jo ci sa euh, euh, reconversion mais la ma cee agsi tu ma tu de parlé tey de bi en équipe nationale 79 kañ nga mujj jouer équipe nationale. ba may jouer kii équipe nationale. 90 la. 90 veillu Sénégal 90 veillu veillu mais 80 veillu Alger ak Claude Leroy. voilà ak veillu Alger ak Claude Leroy parce que même Claude Leroy ba mu ñëwee li tax toolu tooguñu ci équipe bi c' parce que xam nga y' dafa amoon ay mauvaise langue yu dem jiitu ci. ni ko ancien 86 yi ko il faut les prendre dañuy indi problème mu xaalis mais ñun on n'a jamais parlé d' parce que ñun suñu jamono. ñun on acceptait tout on jouait pour le plaisir. xam nga débat kër 86 ba loolu gaa ñi wax yëpp ni nelawu leen da ngeen doon laaj xaalis dara amu ci mais amul amul ñun benn yoon nañu waxtaan ak ministre bi ministre bi ñëw ñëpp toog Landing Sané Omar Omar Gueye Sène moo doon euh, doon euh, porte parole u joueur yi lan nañu wax euh, ministre bi ministre bi les primes c' était quatre cent mille francs gars yi ne ko prime mu quatre cent mille francs yi vraiment dañ ko harmoniser. pour tournoi bi d' autant plus que équipe bi gagné na ba pare qualif gagné nañu premier match ne ko léegi daal dañu bëgg nu harmoniser def ko un million mu ne y' a pas de problème jouer je vais payer la prime donc ñu d' accord bu jeex. Mhm. léegi ba nu demee ba gagné deuxième match bi contre Mozambique. Mhm. nañu ñëw nañu prime bi xaalis bi doon ket euh, bi ñu doon def Dakar xaalis bi xamoon ñu mu toll donc wóorul wóoratul nu joxe prime mu un million wala yooyu. mais c' est normal loolu suñ la ko waxee tu réagis mais mosuñu toog ba ay deux heures du matin trois heures du matin nous on était conscients et il y avait des joueurs professionnels dans l' équipe donc euh, ba ñu ko waxee ñu ne bon les gars nañ dem suñu match ba pare suñu joué suñu match ba pare régler suñu problème mais man foog naa ne gars yi sax nooy xooj dem équipe bi ci diggante bi <laughs> pour équipe yi bañ a gagné pour ñuy mën a am euh, parce que très souvent gars yi du ñu am lu ñu mën a jox joueurs loolu xam nga ah, loolu am lu ñu a jox joueurs yi du ñu am lu ñu mën a jox joueurs yi pour léegi su équipe bi toogee ça fait que dootul laaj voilà alors tu étais à 90 bi ngeen mënoon def ak Claude Leroy finalement defu leen ko léegi mm. ah voilà donc euh, ah euh, Claude Leroy ba Claude Leroy ñëwee gars yi influencé ko ak yooyu mu ne voilà yéen vous êtes des têtes brûlées ak yooyu mais nu teg ko fa continuer di jouer suñu club yi après bon ci laa jogee après j'ai arrêté de jouer quoi. avec la Jeanne d'Arc nga dem ba ban année ba. Euh, avec la Jeanne d'Arc dem naa ba bon 92 euh, 92 euh, tu arrivé très tôt à la très ah junior déjà tu jouais à une équipe première. parce que je me rappelle sama premier match. à la Jeanne c'était à Bamako. Ablaye Sow moo ma yóbbu encore Bamako. ban année. boobu bi ja bi éliminé ja série penalty Euh, mooy bi Christophe Doré bal bi mu dugg a jéenaat arbitre bi ne bal bi dugg continuer boobu Abidjan la ab euh, non non ah. après nag la ñu dem Abidjan Abidjan ba ñu jugee foofu ah, année boobu la boobu la boobu mhm. na ñu dem euh, mais joué kooku 75 la 75 75 voilà 75 c'était en 75 ci Christophe penalty ba mu dugg le filet étendu bal bi génn si voilà arbitre bi dafa dafa dal ci poteau bi voilà donc année boobu après dafa amoon tournoi Joliba mhm. à Bamako léegi ba mu amee tournoi Joliba Laye Sow j'étais à Dakar mu def appel à moi mu ne euh, Guitambert il faut ngeen préparer koto mu indi ko donc j'étais euh, junior. première année junior je me souviens yaa yaa ko Roger junior ngeen junior. alors ci sa reconversion pour devenir entraîneur. voilà ma euh, ñëw tu as Jacquet. voilà. donc euh, ba ma defee reconversion pour nekk entraîneur d'abord euh, Gaucher je le remercie aussi. Euh, Gaucher Camara c'est un grand frère qui m'a beaucoup aidé. Gaucher Camara tu as été son adjoint. j'ai été son adjoint moom laa jëkk a nekk adjoint au niveau de la gendarmerie. quand je suis mhm. arrivé c'est avec l'avenue l'avenue de de de Omar Seck bon parce que président Omar Seck moo fa newoon et comme on était très liés sama mag la et tout au niveau de la gendarmerie. Mhm. donc il m'a demandé de venir travailler au niveau du club. oui donc j'étais adjoint de Gaucher. Mhm. Gaucher assurait en même temps ma formation. donc je me suis dit bon mais écoute il faut me donner les les, les ambitions d'être entraîneur demain. Mm. yow avant nga nekk titulaire à la Jeanne d'Arc ñan nga nekk seen seen ñan nga nekk ñan ñoo doon seen titulaire comme entraîneur nga nekk seen adjoint bare woon. parce que tu es resté longtemps adjoint. voilà euh, je suis passé nekk naa adjoint gaucher. waaw nekk naa euh, adjoint Amsata. Mm. avec gaucher gagné naa championnat national. Mm-hmm. Mm-hmm. avec Amsata gagné naa deux fois championnat national. Mm-hmm. Alain Moisan nekk naa adjoint GA nekk euh, gagné championnat national. Euh, nekk demi-finaliste euh, avec euh, Amsata. oui Ligue des champions. oui nekk finaliste Coupe CAF avec Gaucher. bon entraîneur en équipe nationale Mar laa jëkk liggéeyal. Mhm. en 2004 gagné nañu Cabral à Bamako. wax mhm. Mayacine Mayacine Mar. après ñu gagné LG Cup manax Mayacine Mar encore au Nigéria. Mhm. noo gagné LG Cup. après ma nekk adjoint Alsandia. on a joué une finale de de la coupe Cabral à kii Conakry. Mhm. ñu nax Guinée. Mhm. après demaat année ci topp LG Cup euh, euh, kii Égypte nu finale ak Égypte encore LG Cup bi ay Équateur noo fa newoon ak équipe yooyu yëpp fekk nu ngi doon préparé coupe du monde bi. mais nekk entraîneur. ah oui non non c'est sûr voilà. voilà léegi à l'équipe nationale. léegi après euh, bon ba ma pare ba ma àndeex gauche encore pour la dernière fois. Euh, mooy premier tournoi de l'UMOA mhm. bi ñu joué Burkina après ci laa doon nekk entraîneur équipe équipe bi donc ci laa yóbbu équipe bi euh, Bamako ba ma yóbbu équipe bi Bamako ñu dem euh, Bamako gagné suñu deux premier matchs bi troisième match ñu gagné ñu contre Côte d'Ivoire match bu doy waar. Mhm. bu nga bu nga xam ne presque ci centre bi la ko waaj a dooree. Mhm. gardien bi yaakaar ne day jéem mu dugg. donc année bi ci topp 2009 bi ba ñu demee Bénin expérience bi nu amoon déjà yooyu yëpp. ak équipe bi amoon préparation. bu baax beneen nga jëkk gagné UMOA bi. beneen laa ko jóg nga daje fàkk euh, Yaya Boni le président béninois. nu présenté ma ko. mu ni nga ñibbi si parce que béninois nga. nu présenté ma ko ci tribune bi euh, ba nu gagné coupe ba pare mu ne ma ah non il faut que tu reviennes il faut que nga ñëw beneen. parce que man sama kii euh, li may ñaan mooy. rassembler dajale les fils du Bénin fils du Bénin donc vraiment pour le football. yow dinaa wax ñëpp ñu jël contact ak yow pour si la parce que yow tu es d'origine béninoise il faut nga ñëw liggéey pour le Bénin. jël nañu contact ak yow. ah jël nañu plusieurs fois. dañ ma doon woo pour ma man ma jël équipe bi. dernière question. Monaco jaar na fi yaa leen gagné 3-0 match boobu après Monaco bëgg la yóbbu en France. je suis parti dem na. dem nga ba Monaco. dem naa Monaco ba ma demee fii ba nu defee match bi ba pare euh, Monaco dañu ne euh, temps boobu ndeysaan euh, kii moo fa woon Euh, Aldo Gentina. waaw bi fi newoon ak Campora euh, moo doon président. Campora président Campora. Mhm. Mhm. Euh, Vacareza moo doon secrétaire général. donc gars yi ne dañ may xaar. waaw Monaco ne dañ may xaar ma ne leen no man il faut ma remplir samay condition Sénégal fii ba pare door a mën a ñëw test. donc ñu def yëpp Aldo Gentina préparé yëpp bon président El Hadj Malick président. Mhm. donc ma dem Monaco ba ma demee Monaco. Eh, maa ngi leen di remercier encore eh, Boubacar Sarr Lokot ak Christophe yëpp sama premier match à Monaco ils sont venus m'assister. jot nga joué ak Monaco. non foofu on a joué la la Coupe des Alpes. ak eh, Coupe des Alpes contre Servette de Genève ak yooyu yëpp. donc j'ai marqué deux buts sur trois yu nu marqué parce que j'ai joué avec Dalio Onis. Mhm. Vitalis Roland Courbis. oui ak yooyu yëpp bon donc ngandu équipe Monaco. nga marqué deux buts mais le premier que au départ GIA dafa bindoon ne dañuy. Monaco mu des geste symbolique vis-à-vis d'elle donc loolu la Monaco jàpp ba mu demee ba affaire yi taxaw nag léegi gars yi demandé dédommagement mais il faut ñu jox leen dédommagement liquide xam nga comment ça se passe. parce que man loolu laa yëgoon moo ko yàq transfert ba. voilà transfert bi xaalis bu nga xam dañ ñi amu fi. voilà léegi loolu moo indi affaire bi. oui bon juste nag période boobu fekk naar yi doon ma superviser. Abu Dhabi nu may superviser. ba mu amee affaire boobu mu ñëw seet si ma foofu ne écoute léegi ñun dañ lay jël Abu nga nga dem Abu Dhabi far benn sénégalais moo ne woon ak moom Abdou Aziz Lo moo doon suivre affaire bi mu indi naar yi ba naar yi ñëwee ma signé contrat ñoom. dem def Abu Dhabi combien d'années def quatre ans. quatre ans quatre ans man ak ñoom Boy Bandi. waaw ak euh, góor gi Ndiaye. Ngesiam Ngesiam Ndiaye ah donc euh, c' est pour ça ñun ay on est des ay seex ngeen voilà ay seex nañu quoi. gaañi Kotongi. voilà Kotongi mënoon nañu toogat ak moom tuuti ah. Euh, ndax carrière am gis ngeen ni mu demee nekk na fi professionnel dem na fi Monaco xaalis bu bare bu Jeanne laaj moo ko tee toog Monaco mu mujjee Abu Dhabi tey jii ñibbisi na e c'est l'entraîneur national bu nga xamee ni gagné na loo xamee ni mën nga ni sur le plan africain mën na servir de carte de visite ñaari UMOA en deux éditions ah defe naa ni euh, palmarès la buy wàcc servir carte de visite kon ko euh, Joseph Koto ma bàyyi la nga tàggoo. ah nga tàggu say soppe say xarit yi nga xam ne am na nañu mbégte am nañu la ngay gis depuis Jeanne d'Arc voilà tey jii ma bàyyi la nga tàggoo. mais merci lay donc ci occasion bi nga ma jox tey parce que ñun occasion bi rek na ñu mën a am pour gërëm d' abord suñu waajur yi. jërëjëf ah gërëm ñëpp ñi nga xam ne dañuy dimbali euh, bu jege comme bu sore parce que nit yi lay woo tamit di la soutenir ñooñu ñëpp dañu bokk ci ñi nga xam ne euh, moo noo la dimbali ci liggéey bi ngay def euh, damay remercier public bi. Mhm. lay parce que public bi sénégalais dafa jouer rôle bu rëy man maa ngi doon gis public sénégalais communier ak équipe am dëgg keroog ci final bi. ci fi ci match yëpp. way way parce que même suñu match contre Côte d'Ivoire suñu gagné Côte d'Ivoire public bi daf ci jouer rôle bu baax. ah way way Côte d'Ivoire teel leen mené au score. que teelu ñu dugg ci match bi. Mhm. mais moo tax may gërëm public bi. Mhm. vraiment le public sénégalais dafa jouer rôle bu rëy. jërëjëf Koto. may remercier sunu dirigeants ministère comme fédération mais surtout la fédération le président Augustin Senghor parce que moom mooy personne morale bi mhm. parce que moom en fait comprendre na lu tax ma doon wax ne que il faut que nu ñuy teel a dugal préparation mhm. donc préparation bu baax bi ñu def moo ñu permettre tey ñu am résultat bi mhm. match amicaux yi ñu doon demandé bi ñu yuñu ko joxee moo ñu permettre tey ba ñu dajeex Mali ñu jàkkaarloo ak moom parce que joué ak moom deux fois ci dëkkam nu gagné ko gagné bu nga xam ne. xamoon nañu ne que match bi lu mu yàgg yàgg yàgg yàlla dinañ jàppale nu gagné leen parce que wan nañ leen ko seen dëkk. donc préparation bi nuy gërëm sunu dirigeants yi wax leen ne que loolu mooy avenir du football bi. Mm-hmm. parce que football bi suñu équipe bi surtout que nu mu mel ne parce que chaque année presque da ngay perdre quatre-vingt pour cent sa effectif. soo ko seetee lay ren lii xale yi def. fii léegi saison bi di commencé di nga au moins sur vingt yi nekk ci liste bi seize ou quatorze dem nañu. donc joueurs yu bees nooy ñëw. voilà yooyu nag suñu la joxul temps defaraat leen. pour dugal inculquer sa sa tempérament. Mhm. ak yow li nga gisee football bi. Mhm. da ngay toujours saa yoo demee ci campagne da am problème parce que au niveau des clubs club yi seen terrain. Mhm. d' entraînement yi yu ci ëpp c' est des donc yenn fondamentaux tu es obligé de tout reprendre tous les jours tu reprends les fondamentaux pour permettre joueurs yi ñu nekk ci niveau bi mhm. vraiment maa ngi gërëm ñëpp gërëm directeur technique bi Amsata bu nga xam ne bàyyiwuma benn yoon mhm. tout le temps il est venu nekk fa les entraîneurs nationaux ah de première division ñoom Amara Ablaye Sarr mhm. Karim Séga Diouf euh, kii nu mu tudd Gomis euh, euh, kii nu mu tudd Bougounta mais vraiment c'est des entraîneurs yu nga xam ne qui m'ont vraiment assisté dañ may woo wala nu ñëw seet si ma wala ñu téléphoné ma euh, euh, sama xarit ta Tassirou Diallo. Mhm. bi nga xam ne euh, tous les jours il m'appelle pour ma pour defal ma. Mhm. ah Amadou Diop bu nga xam ne tous les jours Archita dañ may woo dañuy nekk sama vraiment. jërëjëf les anciens internationaux maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ñoom mbay mbay ñëpp xam nga sooy lim jum. Mhm. mais vraiment ñooñu je tenais coûte que coûte. à les remercier à fen remercier bu nga xam ne moo ñu accompagné Bamako moo doon chef de délégation ba mu ñëwee toogul benn minute tous les jours. bii sama xarit Yatma Diop moo doon chef de délégation Yatma teg nekk teg ci mu nekk chef de délégation <laughs> nekk sama premier vice président au niveau de l'amicale des internationaux. Oui. parce que man maay deuxième vice président Cheikh Seck nekk président donc. Euh, voilà. vraiment c'est la famille. Oui. et vraiment gërëm ñëpp ñëpp ñëpp vraiment quoi. Joseph Koto ngi nii numéro bi mënoon naa ko baptiser démb ak il y a 32 ans, il entrait en équipe nationale. Gagné le premier Cabral à Bissau, avec le Mali à Guinée, en demi-finale et en finale. 32 ans. 32 ans après, il gagné en tant qu'entraîneur. Je suis baptisé euh, numéro 1 Demb Aktei. Pour lui, il fait football en tant que footballeur, en tant qu'entraîneur. beneen kay xëccoog ñu na ah, parce que béninois yi ne na ñu foofu mooy cosaanam yaaya bo ni le chef de l' état waxtaan ak moom ko maa ngi lay nekk waxtu woo bëggee bu la Sénégal soxlaatul ñëwal au Bénin nga ñibbisi liggéey liggéey bu nga xamee ni danañu jëriñ kon koto laa leen indil tey ñëwoon démb kenn du ci doyal mënoon nañu continuer di waxtaan ba une heure de temps encore muy révélé loo xamee ni xëy na xamu leen ko woon ci moom à Monaco à Abu Dhabi comme professionnel deuxième meilleur buteur du championnat du monde universitaire c'était en Montevideo en Uruguay Koto merci d'être venu à la prochaine fii sa kër la parce que kër gi këru gagneur la ah te comme yaa ngi gagné doo fi gëj <laughs> merci ñëwoon démb ba beneen jërëjëf tey ji Joseph Marie Koto je vais l'appeler de tout solo nom Joseph Marie Koto lañ leen indil pour service rendu au football c'était déjà il y a 32 ans Joseph Koto